gën a rafet rek lañ fa mën a jëlee benn ñi dem ñi ray ñu ñu dem aljana benn ñi dem raye nangu màng ga am victoire bu rëy rëy boo xam ne dañ koy waxtaanee ba pencam yàlla yéen timit bu ngeen demee seen dund gi ñaar rek ngeen xaar benn yàlla jéppi leen ebal jibril mu xaacu leen ngeen dee nam ko defee woon xeydu jiitu woon ya wala yàlla jéppi leen boole ñu nag yéen ñi xeex ñu dumaa leen yàlla dumaa leen ci suñuy loxo su ko defee bu ku dee ci xare ba dem safara su ngeen demee tamit su fekkee deewu leen bu ñu leen gañee ngeen am gàcce du ngeen xajat ci pénc mi kon ñun ñi ngi muñ ñaar ya gën rafet yéen ngeen i muñ ñaar gën a ñaaw lii rek moo dox suñ diggante qul anfiqu tawan jooju mi ngi wàcc ci ki kiñ doon wax démbu xaysu moom ma waxoon la démb yonentu bi ne ko tee ñoo dem ca bannu asfar xeexi fa comme yàlla la nattu ci jigéen suñ fa gañee ca màng ma ma seet jigéen ya gën rafet jox la ko mu ne ko daal booye boo ngàntal ma rek damay bañ daanu ci fitna damay ragal dem ni ma yàlla nattoo ci soxna yi bala ñoo séddalee màng ma ma far dal ci seen kaw kon booye boo ba ma fi rek yàlla ne allah fil finati saxatu bi ma amee gàcce googu nag xam ne def na lu garaaw mu ñëw ci yontu bi ne ko sama alal ji lépp laa la bëgg a jox tuub kàddu gi génn ci mbir yi yàlla ne ko comme moom am naa féq la gëmul la gëmul yàlla même alalam lépp bu ko joxee woon tamit du ko jariñ dara bu ko joxee ci forcé du ko jariñ bu ko joxee ci coobare du ko jariñ maanaam nag lamar la def xul la wax waaye bi maanaa anfiqu bi maanaa yunfiquuna dafa taxaw maanaam euh, incha allah ci bindin mais xabar nga koy maanaam da nga koy firee firinu xabar moo tax ngay wax ne xul waxal ne anfiqoo ña ngay dundale au lieu que nga ne anfiqoo dundale leen mais anfiqoo ña ngay dundale anfiqoo lépp lu ñu dundale tawaan ci coobare aw kër kërëhën wala ci forcé lan yu xabbala déefut nangu nanguleef leen minkum ca ñoom innakum naka yéen kuntum nekk ngeen xaw man di nit faasiqi na ñoo xam ne dañoo kàccoor wa ma manaum ana lan moo leen tere an tuqabala ba nangu leef minhum ca ñoom nafaqaatum seen dund ya lu tax yàlla du ko nangu illaa ana lu dul naka ñoom kafaru dañoo weddi billaahi ci yàlla wa bi rasuuli ñu weddi yonentoob yàlla bi wala yaatu na du ñu dikkal salaata julli illaa wahum dudul ba ñoom ku saalaa way tayal lañ wala yunfiquuna duñ dundale illaa wahum lu dul ba ñoom kaarihuna woy sib lañ la ñuy dundale joxe nañ ko waaye xol yaxandut ca yàlla ne ñoom boo gisee bu bu yëkkati woon alalam lépp pour bëgg la koo jox nga defal ko ko ci yoonu yàlla sax duma ko nangu ndax seen pas-pas ba moo wérut te ku sa pas-pas wérut loo def yàlla du ko nangu moo tax kon nag mu ne bu ñu xeboo dundale ci coobare bu ñu xeboo dundalee ci tabaarakallaahu forcé luñ ci mën a def man yàlla duma ma ca nangu dara te nit ñu bon lañ am naa fekk buy julli foo ko fekk day tayal koo gis nga xoo ko ci julli mu tayal mbaa nga xoo ko ci julli mbooloo mu tayal wala bu déggee noddu rek tayal xamal ne naa la waaye jullit piir bu déggee xooteeb yàlla du ànd ak sagoom bu ah bu déggee bu déggee xooteeb yàlla bërëb jëmoo la koy wan da fekk na sax balaa dégg woote ba jël na matukaayam yépp di xaar woote ba bu laajee sangu-sangu na bu laajee jàpp-jàpp na ba def matukaayam yépp bu yàlla xootee rek mu dem wuy ji ko fañ koy xootelee ànd ak sawar ca lool waaye foo dégg ñu noddu nga ne nañ naan lëwal dóore julli xool ba xam na lu fa ne ni faa xam fa de waaye xoote bi yàlla kay bokkasee moom lañ war a jiital ci lépp ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi caat yow moo war a jiitu lépp yàlla ne seen alal yu bari yi ak seen doom yu bari yi ma jox leen seen nattu la dama cee jaaree pour nattoo leen ko ndax dama ko def muy istidraaj sa nastadrijuhum min haythu laa ya'lamuuna rekk la moo tax alal yàlla mën na koo xëpp ki ko gëmut ba mu xëppale ko ko gëm njaboot yàlla mën na koo xëpp ki ko gëmut ba mu xëppale ko ku ko gëm àdduna amul mérite kër gu tilim la kër ak tilim la loo def rek mën nga cee am waaye aljaana nag mooy mérite foofa moom ñu sell ña rek la yàllay tànn yóbbu leen ca këram gu sell ga waaye fii àdduna bon te réewut fee am ndomba tànk bon te réewut fee am alal bon te réewut fee am fan wu guddul bon te réewut fee am jàmm bon te fee am njaboot gu bëri yàlla dana la ko def rek ngir jay la nga cay lagar lagar yi foog ne man yàlla dafa jubóog man gis nga li ma jox ci alal gis nga li ma jox ci nangam comme nam ko defaloon wala dib nu mu alalam ju bëri jaag doomam yu bëri ya fekk da ko koy jayee bu dee rek mu boole ko dugal ko safara moom lay wax si moo tax ne fala tujibka bum la héemuloo am wàlluhum bëri seen alal ya wala awlaaduhum du caa kenn bëri seen doom ya innama yur daal dafa namu laahu yàlla li ngir mu mbugal leen bihaa ci sababu alal yu bëri yooya ak doom ya fil xayaat ci dund bi duniyaa bu jege bi wa tës xaqamu buddi anfusuhum seen rooxu ya fekk waxum ñoom mbir moomu ñoom kaafirun way weddi lañ yàlla wa way yaxlifuuna ñu ngay gëñ bi ci yàlla fuñ mën a dajeeg yéen ne innahum naka ñoom la minkum ci yéen lañ bokk wa maahum déen ñoom minkum ñiy bokk ci yéen walakinnahum li fi nekk ñoom xaw xawmu nit lañ lañ ñoo xam ne yafraquuna dañoo xuttu law yajiduuna bu ñu amoon malja an tata aw maxaaraatin mbaa ñu am ay xuntu aw muddaxalan wala ñu am lu ñuy tuddee tinel su boobaa lawal law danañu tàpp lii lay jëm ca moom fekk waxu mbir moomu ñoom yee ci maxu na way màmmu lañ dañ leen a ragal buñ leen gisee rek ne ñu nag yéen a bokk ñoo far ndax bu waxtu julli jutee xam nga naafiq dafa métti yow ñii nga gis munaafiquun yi yëpp di trois cent personnes pourtant ñooy fees jàkkaay yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bu julli jotee ñu julli bu xoor jotee ñu xoor bu joxe asaka jotee ngi joxe seeni asaka ñi ngi koy def nii rek tabaarakallaahu ci forme bi waaye fekk fond ba dara baaxut ci liñ nëbbu dara baaxut ci su ko defee nag buñ gisee jullit ñi ne ah yéen dañu nag yéen ñoo bokk benn écrit ñoo bokk écrit ñun ñëpp benn lañ fekk bëgg cee bëgg a wax loolu ngir mën a mukki ci jaas yi ak wax loola ngir buñ xeexee ci màng yi ñu mën leen caa sedd man leen a jox sécurité ci dëkk bi su ko defee yàlla ne déedéet dañoo xuttu rek xuttu nag moo gën a garaaw ragal ci olof ñu ragal lañ boo ne fépp rek fekk daw nañ mu ne wallaahi ragal nañ ragal goo xam ne bu ñu amoon tata ñu mën a dugg ba mën a mucc wala ñu mën a am xunt ñu mën a dugg wala ñu mën a am tineel yoo xam ne bu ñu ca duggee dañ mucc dañ fa daw fekk ba ñuy dem sax dañuy màmm daw dugg ca waaye loolu du leen tax a mucc mukk fu ñu mën a nekk rek tabaarakallaahu jaasi yonent bi fekk leen fa ak deex ak yàlla gi ray ak yàlla gi ay na maa takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fii burujin mushayyada aaya ji tegu ci mi ngi wàcc ci abu jawaar am naa fiq la te pourtant mën a jullit la feeñal na ak njullitam ñi koy tuddee ibnu Quwaysirata ku yéeme la woon yonentu bi dafa toog di séddalee màng ma ci ni ñii mel ni Abu Sufyaan ñii mel ni Aqra ibnu Xaabis ñii mel ni Oyeynatu ñu mel noonu ak kenn ku ci nekk mu jox la téeméeri gëléem ak juróom fukk jox la xuur ba mu fees ci ay gàtt ci diggante xar ak bëy mu ñëw fekk yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni ku koy poñe ne ko ñii di sàmmkatu gàtt yi ngay yëkkati gàtt yi toll ni di leen jox doo màndu ci ni ngay séddalee yonantu bi ree ne ko illam adil man yadil su fekke man manduhum kan mo wara mandu man mi yalla holu ci xibar yu baye ko ci asaman yen ñi mu baye ci kaw suuf ba leen indil xibaar du ngeen ma holu ah umar ibn khattab wax yonantu bi ne ko bàyyil ma rey mu ne ko damay bañ ñi ci biti wax ne yonantu bi ma ngay joxe ndigal ñi ray ay saxabaam ndor lu bon bon rek setal ñi ci biti comme mi ngi lay mbubbo rek xaw a gën a la yaatal sa dënn mën koo toléré ci lu bëri ndax tey fekkoon tey dama leen a rey rek ñoom nit ñi duñ duñ xam li xew ña ca biti duñ xam li xew dañuy commencé rek ne yonentu ba wala ña ko toppoon ñoo nga ne ñu ngi leen di rey te moo joxe ndigal pour ñu rey leen Omar bu ko def bàyyi ko waaye maa lay xamal ne kii yàlla dana génnee ci njabootam ñoo xam ne yéen saxaba yi li seen julli di rafet ngeen jëlee ko ci man ci sallu kama raaytumuni usalli da ngeen xeeb seen jullee ci seen jullee ñoom ñoo leen di daq julli foofu gën leen koo rafetle da ngeen xeeb seen koor yéen ñi ci seen ak koor li ëpp ci fan yi dañ koy xoor da ngeen xeeb seen mën a joxe asaka ci seen mën a joxe asaka ñoom waaye ñooñe ñooy ñu gën a bon ci kaw suuf maa ngi lay xamal ne man yonent bi su ma fekkee woon bu fekkee woon ak ñoom jamono danaa leen rey ku leen rey rey nga ku gën a yées kon gis nga dara beesut lii la yonent bi waxoon kooku ñu ne ñooñu boo demee ci mu fassiru ñu ne mooy waan najat ak la ñuy xoote léeg-léeg nga julli ci seen kanam ñu ne sa julli gi baaxut léeg-léeg ab julli tam lëmm dem màkk di joxe asaka ñu ne xéeféer la xéeféer loo ko pas-pas loo ko pas-pas loo pas maanaam bon bon loo pas-pas yi nga xam ne tey résultat bu diine am boo toppee tànk yi ñoo ko joxe mu ne bu len ray waye dal maa lay xamal ne yalla dana genné ki ñom ño xamé ne lañuy mel mu ne ko timi da ngeen xeb sen alquran gi sen alquran ji ku ci jang alquran wallahi do ñëmé jang alquran ci kanamam ta yontu waxutoo de sahaba yi la doon wax ñoña yeen da wax yeen sahaba yi sen alquran ñoo alquran ni ñooña te ñëwaguñ ta suma fekke won woon ñoom jamono ray len yeen da ngeen xeb sen alquran ci sen kanam yeen sahaba yi ma yar dama ne sen julli da ngeen xeeb yéen ñooño seen jullee te guñ waaye ñooña ku leen rey rey nga ki gën ñi gën a xées ci kaw suuf su ma fekkente woon nag ñoom jamono dama leen di rey lii la yonent bi wax loola keroog Seydunaa Omar ne ko baleet su ko defee nag moom moo doon ayibal yonent bi ci ni doon joxee mooy tey li xew ci pénc yi rek te pourtant waxam làmmiñam wu ñaaw wii yépp bu ko yonent bi séddee mu noppi tagg ko bu yonent bi séddalee joxut ko mu xas ko moo xew ci suñ ko maanaam ci kër yëpp rek moo xew tey fépp rek dana bëri ñu xas sëriñ bi ah sëñ bi nangam nangam sëñ bi kay lim def tegu ko fenn fekk ah kay am na fu mu ko teg fa tegu dara ci sa loxo rek waaye bu ko tegoon ci sa loxo danga nga na ne lim def xam na fu ko teg bu sëñ bi nag tabaarakallaahu séddalee joxul la nga xas ko bu la joxee nga tagg ko yooyu tey lépp day naa naafiq yëpp tasaaroo nañ ko ci kër yi moom lay wax si nii moo tax wa minhum yi dana bëri wa minhum man yalmisuka ومنهم من عاهد يب منافقون الى يخ موتاخ موني ومنهم امنا تيا منافقون يا من كو خامني يلمسو كدنا ايبل لا في صدقاتي كي صرحي يي غاي جوخي فان اعطوا سفكي جوخيف نالين منا كي صرح يا ردو ني غرم تاغلا وان لم يعطوا سفكي جوخيف لين منا كي صرح يا اذا تي مبتلهم نيوم يسخطون ويسانج لاني walaw annahum doonte hun naka ñoom raddoo gërëmoon nañ maa aataahum loo xam ne jox leen ko laahu yàlla soo wa rasuluhu ak yonantu mi lam leen sédd ca màng ma wa qaaloo ñi wax ne naa doy nañu laahu yàlla sa yuutinaa dana jox ñu laahu yàlla min fadlii ci ngëneelam ëllëg muy payoram wa rasuluhu ak yonantum bi innaa naka ñun maanaam raaxibu ne way xemem lañ ila laay la nekk fa yàlla ci payoor li ko noon mu doy lu doy xamut luñ doy loo fi am lu la sa kilifa sédd lu mu tuuti tuuti boo ko doyloo ne bu fekkee dafa manqué man doyloo naa manqué gi doyloo naa manque manque gi waaye nag maa ngi bëgg bu ëllëgee yàlla mu mottaleel ma ko ca payooram nga bu la sa jëkkër joxee dépense bu doyut nga doyloo manque gi ne la ca manque maa ngi bëgg bu ëllëgee yàlla fayee ma ko njaboot gu baax ak ëllëg mu fayam ma ko ca payooru aljanna ya àdduna bi lu doy amut fi luñ doyloo rek moo fi ne luñ doyloo rek mais lu doy amu fi waaye ñoom munaafiqoon yi ñoo la jël yonantu bi witt ca ca ca wooteem ba wax naa la ñu ne njëlbeen ab xoote ak mujj ak xoote duñ nekk benn xoote bu xasee xumb dootoo ko mën a contrôler ti bu xasee xumb rek ku ne cay ne lu ne cay ne la ca ne yëpp yëpp boo ko dindee xoote ba tas moom kay da nga cay bàyyi noonu rek la ci gën a bëri doo ca man dara dara nga ci dut man am na loo xam ne boo ko ca bëggee dindi sax ñu saaga la te du sotti moo tax première xoote boo gis te yonantu ci gaa yu baax yi waliyu yàlla yi ña njëkk a ci première qualité nit ñu mel noonu doo ko gis feneen waaye nag ña ñëw deuxième ba troisième ba quatrième ba cinquième ba ku nee nga ca waaye tamit lu nee nga ca la ca nekk yëpp di saxaar boo ko bëggee fay safar safaroo fay du sotti dara nga ci mën lii moo dal Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam njëlbéen wooteem ba ca Màkka ña ko xuy si ñëpp xuy dañ ko xuy si woon te yàlla rekk tax ba mu ba mu demee Madina bees ña ko xuy si ñëpp dañ ko xuy si te yàlla tax waaye ba demee ba woote ba xas xumb cere ja foro weñ ya bëri. bul fàttee abonné bul fàttee abonné bul fàttee